asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk ñi suivre ci Leewtoo TV nuyu naa leen ziar leen tey nag waaw yére olof la ñu def de waaw comme ni ngeen ko xamee rek ci Leewtoo TV du mën a ñàkk 100 pour cent lamb kese nga fay seetaan mais nag balaa ñuy sori dañuy ñaan Sénégal ak àddina bi yàlla na fi yàlla jëlee coronavirus bi parce que nag sonal nañu lakkal nañu te itam tax na lu baree bari ci réew mi gent wala ci àddina bi Pape Thialis Faye nag la ñu àndal nii ñu fekk ko foofu mu génne ñu daje ak moom fas yéene waxtaan ak moom li ko waral nag mooy olof na wax waxaat du bëri wax mais leeral ay wax la waxoon nañu ak moom fan yi am na lu ñu waxoon am na lu fi xewaat ci diggante bi moo tax tey ñu fas yéene waxtaan ak moom Thialis maa ngi lay nuyu di la ñu ngi lay fay di la nuyu donc si aju ñi di la jox sa wàccuwaay di ñuy aussi équipe bi ñu fi àndal yëpp fii si King Fahd Palace fekk si ma fii euh, wu aussi si ñaan yi nga ñaan par rapport ak coronavirus bi mhm. boo xoolee tey King Fahd nu mu mel nii war a xam ne corona bi mi ngi def ay ravage mhm. donc tey empêché na tey fii fees ce qui veut dire que am na loo xam mi ngi koy def. di nuyu amateurs yi. du nuyu Sénégal di nuyu ñëpp. Euh, King Fahd Palace bi ñu la fekk nii maanaam lan moo waral King Fahd Palace ak Thialis da nga fi ñëw pour dal wala qu'est-ce qu'il y a. dama fi dama fi ñëw souvent fi ñëw donc dama ñëwoon fii rek. Mhm. Euh, jóge si benn affaire ñëw fi toog. Mhm. far ñi waa RTS ñëwaale fi ñu am émission bu ñu def yow aussi nga jaar fi ñu am lu ñu def. waaw am na solo léegi fi may ñëw tout droit rek balaa may ñëw sax si làmb ji mooy fan yi muy diggante démb bërki démb ak ay fan yi ci ginnaaw dañu fi dégg Pape Thialis Faye mbirum justice ak na nit wala sax soxna ba gaañ ko ba dindi bëñam ak yooyu ñu jàng ko ci ay journaux li ko ci site internet yi mbir moomu mën nga ci leeral sénégalais yi dara ci Leewtoo TV. waaw Babacar loolu problème bu am la boo xam ne pour man problème privé la. Mhm. Euh, li ko waral aussi xëy na dóor am na si. Mhm. gaañ am na si. Mhm. mais du loo xam ne moom laa bëggoon def. xëy na bu ñu la woowee gendarmerie déposé ñu déposé plainte wala gendarmerie nga ñëw ñu auditionné la. Mhm. nga wax accepté que ne effectivement dóor nga nit ki. maintenant xëy na gaañu na mais amoon intention gaañ kenn. Mhm. li ko waral aussi il faut ñu wax ko. Mhm. parce que bu yemoon ci ñëw dóor nii man je ne suis bay dóor nit wala mel ni ab dof biy dóor nit ñi mais c'est parce am na lu ko waral. li ko waral mooy acharnement bi nga xam ne moom moo am ci man donc provocation acharnement. donc violation de domicile nit nga wax ko ni sama kër bu fa ñëw parce que je suis marié et que sama kër la waroo fa ñëw parce que amoo droit ñëw fa donc bu insisté depuis un mois di fa ñëw ba tabaski jot mu ñëw tabaskee foofu mu mën a bàyyi loolu ñëw sama bureau toog fa tabaski wu ma mu xaar le lendemain ji samedi mu ñëw fekkaat ko ba vingt deux heures vingt trois heures ah ma ne ko nag amoo droit ñëw fii si wax ji noonu mu am lu mu saaga ma ma dóor ko génn dam bon jàpp ni dara amu fekk ni gaañu na mais loolu aussi di di geste boo xam ne dama koy dama si jégalu di si regretter di ko regretter. mais balaa ngay dama lay dagg maanaam euh, ki nga xam ne ñëw na sa kër dafay tëbaskee wala nangam maanaam dama yaakaar ne xanaa du benn euh, nit boo xam ne ca mbedd ma la jógee rek ça veut dire que bu ma waxee loolu mooy am na lu la lié ak moom xëy na ba tax moom mu fit bu toll ni mën a ñëw sa kër lan moo leen lié. non amul amul lu ñuy lié li ñuy lié mooy sama copine la woon sama copine la am nañ bébé man ak moom mais loolu waru tax mu ñëw fa parce que takkuma ko parce que ki nga takk mooy am droit ñëw parce que bu fekkoon sama jabar fekk na ko foofu dinañ am coow ñoom ñaar dinañ am problème donc kooku doom rek la ñu sekk donc takkuma ko waru ñëw sama kër parce que man dama am njaboot aussi donc loolu moo nekkoon problème bi maintenant bu loolu weesoo eh, li si presse bi traité te presse bi ma nee presse mooy groupe Futurs parce que tey du du du du benn yoon biir lañ ko def. est-ce que ñoom rek ko traité. non cest à si ñoom la commencé ñoom rek ñoo ko def. parce que li mu def ñoom loolu la ñëpp reprendre donc ñoom ñoo ko njëkkee te du tey rek la ko def am na beneen problème bu amoon ci géej waaye football club bu mag jàppoo SA bu Jamil jiite woon ñu nekk si si dam di si ñëw dem ba taas ñoom ñu def si plateau jàkkaarloo invité côté boobu waa waa jàppoo yi ñoom ñu ñëw invité wuñu ñu d' abord mais ñoom rek la ñu invité ñu ñëw wax lu ñuy wax ñoom ñu am nuñ traité sujet bi wax ci luñ ci wax yëpp ah ñun ñu ma ne amul solo ba wax nañ lu ñuy wax mais ñun jàpp nañ ni ñoo nekkoon ci dëgg ba kooku jëlee yóbbu ñu ba taas ñu gañe ko am yeneen asse loo xam ne xew na fa yoo xam ne pay jii buñ ko waxoon xëy na ah, nit ñi ñu bëri rus ndax club bi buñ ko bàyyi woon tey jii moom da ko naroon jaay ay malien te yooyu yëpp mi ngi woon si si dossier taas bi taas jox ñu dëgg amu amande ko pour mu fay ñu donc loolu nekk loo xam ne traitement bu ko groupe Futurs Médias dafee du noonu parce que doroon déglu ñaari part wala invité ñaari parti yëpp ñu loolu amul solo ñu bàyyi mu dem ñu ñëwaat si beneen article boo xam ne suñu benn xarit suñu xarit sax nga xamuñu ko sekku ñoo moom dara nekk RMD rajo Sénégal rajo rajo Dakar bind benn article si man si loo xam ne ni ay ay ay ay ay waxu kasaw la bind ko si ñoom tamit ñu jël article bi génne ko si publier ko ñu dem justice ñu jox ñu dëgg kooku war a ñu fay ñu war a def recouvrement pour ñu fay ñu loolu aussi nekkaat erreur bu groupe Futurs Médias def te ba léegi ñëwuñ ci man laaj man nu mu demee troisième fois bi troisième bu nga xam ne moom lañ def mooy bu démb bi aussi jël benn sujet traité ko même bu fekkee ni li ñu wax parce que titrage moo si am solo boo nee titre def ko à la une ne Pape Thialis Faye promoteur Leewtoo arrêté te problème boobu ça n'a rien à voir ak Leewtoo dañ la arrêté woon yow bi affaire bi xe dóor bi amee gendarmerie dañ la woo wala mais nit koo dóor ñu porter plainte dañ lay woo nga wuyu ji. mais est-ce que moo tax tamit waa l'observateur bi ne dañ la arrêté. mais mais mais ab. ñu ji kay est-ce que teewuñu la ne la toogal fii xaar. ab république lañ nekk ñun dañoo ñun ay républicains ay citoyens lañu bu ñu nekkee si ab république nit porter plainte même fekkee dóor ñu ko def ñu ko dara man mii ma la porter plainte dañ lay woo ne la kaay déglu la nga wax ñu xool mais comme dafa gaañ dañ gaañit mu am euh, euh, certificat médical 11 jours. ñu woo ma auditionné ma déglu ma si diggante bi ñoom ñu ne ma naa toog xaar damay toog xaar. damay non ñoom gendarmerie ñoo leen nga toog xaar. waaw xam nga yoon dafa am. donc yoon booy boo doolee nit. nit am certificat médical a dañ lay déglu bu la dégloo dem yóbbali si procureur parce que amoo droit dóor nit waa amoo droit fajal nit mais loolu du pour man du arrêté parce que fond au sujet c'est le procureur qui décide. c'est pas la gendarmerie mooy décider gendarmerie def liggéey bi jox procureur jébbal ko dossier procureur moom mooy xool ndax kii dañ ko tooñ wala tooñuñu ko donc procureur ba mu xoolee xam ne dossier bi du dossier bu ñu war a mën a woo nit di ko fa tey benn fan. Mm-hmm. kon yow maanaam too ñaata heure nga fa def. donc ça veut dire que xaaral ma yegg si rek mm-hmm. parce que kooku déposé plainte bi bu retiré plainte am rek def désistement rek problème bi jeex na. donc bu demee day moom daa retiré woon plainte bi. si sa asile di def day sama retiré. kon yow jotoo te toog gendarmerie ay waxtu. toog naa fa benn fan. ah benn fan kay xëy na lobs kon juumuñu ne calis. non c'est pas du question juum bi du question juumu lobs mais bind bi moom mooy mooy tax parce que ki ngay bind loolu te loolu amul ni dafa war a dem alaas wala ñu woo ma man laaj ma na ma ah diw ko dégg na léeg-léeg lii mais mënuñ jël suuf boobu def ko parce que li ñu ko def aussi ñoom loolu lañ si jublu woon mooy def article bi ba bëgg ma bëgg ma salir def nañ ko. man audience ñu amoon tey. dem nga ci euh, fële ci tribunal ba. tribunal ba si suba lañ demoon. léegi ba fu mu mujjee. àtte ba mu mujjee mooy ndaw si si boppam moom moo tooñ. moo tooñ parce que amul droit ñëw kër jàmbur ça c'est de un deuxièmement man kenn condamné wu ma ñii sursis ñii prison ferme ñii dara parce que jàpp ne ni man tooñu ma ko mais waruma dóore parce que man waruma def justice moi-même c'est-à-dire nit mënuñu la tooñ yow ngay fajal sa bopp. loolu lañ ma wax te loolu dëgg la nangu naa ko waruma faja sama bopp. mais amende amu ci. amende vingt mille franc lañ lañ ko war a jox. amul leneen décision bi yëpp mooy oh, amende vingt mille franc war a amul condamnation amul dara moom moo tooñ door naa ko dóor boobu si dóor bi ma fay ko si vingt mille franc mooy amende bi. donc loolu jaru woon tey presse bi wala kii promoteur. waaw mais nag xam olof nee na euh, ku ku bindoon ni ku bindoon ni tam faw ñu tëggale ñaari boor Pape Thialis Faye moo siiw mooy promoteur mooy président Guédiawaye yaa ngi deg sénégalais yi xam ko am na ñoom mën nañoo dóor nit te kenn du ko bind mais yow defe naa nag bu dóoree nit surtout jigéen ba mu gaañu ba gendarmerie woo la faw ñu bind ko nag. DG mais conséquences yi. conséquences yu notoriété mooy conséquence sa tur am fu mu yegg mooy lii loolu weddum ko. suñu borom mooy def loolu man defuma ko utuma ko waruma ko suñu borom suñu borom mooy def loolu suñu borom defee loolu nag conséquence bi mooy lii tey xëy na si si lañ toll mais suba ëllëg leneen mën na ñëw wala leneen mën na amaat loo xam ne dinañ ko wax parce que suñ tur moo toll foofu mais dañ koy nangu accepté ko. damay ñëwraat parce que tamit dafa mel li nga am ak ay jafe-jafe maanaam wax nga fi mbirum Jamil mbirum soxna si ak yeneen affaire ak sax ay ñoo xam da nga doon liggéey ak ñoom ci ay mbirum yoon yooyu loolu tamit est-ce que su bëree bu yàggee est-ce que du doo doo doon ku sikki wala. non liggéey moom liggéey contrat la ak yow ak ay personnel liggéey contrat ak personnel la da ngeen di ànd bi ñu contrat liggéey boo xam ne da ba mënul tulañ ànd am na lu si législation du travail wax inspection du travail am lu mu ci wax mais lu mu ci wax loolu ngay appliquer maintenant nag yaa ngi koy jaar ci na neex nit ki ko mën na a neex mais bu ko neexul aussi mu dem tribunal du travail li la ñu lu ñu daan ñu nangu ñun bu ñu ñu daan bu ñu xam ne tooñuñu ñun aw ma ci problème yaa ngi jéglu jigéen ñi daal su non waaw non par rapport ak parce que nag na ñoo xam ne daal ne nañ moom góor moom ak lu situation mën a métti métti war na mën a maintenir ba du dóor jigéen loolu la ñu bëri wax de man di dégg naa wax yooyu dem ba tey loolu la ñuy la wax rek xam nga xam nga loolu xëy na peut-être fekk fekk dalul la wala xamoo seen circonstance la la dalee ñun on ñun nekkuñu ñu violent mosuñu dóor kenn xëy na nag góor nañ comme ñëpp mais mosuñu dóor kenn du violence maintenant circonstance yan moo am ba tey loolu am parce que koo fekk sa kër vingt deux heures vingt trois mu fee nekk waroo fa ñëw danaa ko waroo fa ñëw maintenant bu amee nu mu la saagaa saaga la ndey sa ndey taxaw da nga koy dóor xëy na maîtrise boobu laa amul woon. bi mu lay saaga baa ngi taxaw waaw. donc aw ma maîtrise boobu xëy na peut être xëy na fu ma toll la aw ma maîtrise mais waroon naa maîtrise yu bañ ko dóor parce que je responsable mais xëy na suñu borom mooy def loolu xëy na aw moon maîtrise pour maîtrise sam ko dóor mais dóor naa ko te moom koy dóor jublu si pour gaañ ko xëy na gaañu na am na si bañ bu si damm euh, ñu siy jégalu moom dëkk si jégalu moom d' abord parce que xëy na loolu waru xaj suñu diggante. ana mbokka mbokkam. Euh, bon mbokkam yaa ngi fi. nu ñu dund affaire bi. non loolu moom <laughs> mën xaw ma ko parce que daw ma si ay mbokkam wala xam mais en tout cas moom elle est responsable jégalu naa ko parce que loolu waru xaj d'abord suñu diggante. parce que yàlla may na leen bant. deuxièmement aussi di jégalu par rapport ak jigéenu jigéen ci boppam parce que jigéen moom foo naa ne am nga leneen loo ko war a mën a defal lu jëkk a gaañ. troisièmement aussi ñi nga xam ne say am di jàmm lañ say mbokk lañ say xarit lañu ah dégg ko liir ko si journaux yi dem jënd ko am na benn maire boo xam ne tey ba ko doom demee gis liir ko dafa bàyyi liggéeyam jënd ko jox ko yaayam ba ko yaayam liir dafa dafa tiit daanu xam donc yooyu yëpp ay nit lu ko waral parce que article bi ñu ko bindee la. donc yooyu aussi di si jéggalu ñooñ ñëpp ñoo nga xam ne samay am di jàmm leen samay xarit sama famille samay samay ñëpp lañu ma leen siy jéggalu si jéggalu aussi sénégalais yëpp képp kii jigéen xam ne ni bon dal na ma mais incha allah rabi si kàttan yàlla dana ñoon dinaa xam ne laay maîtriser wo pour loolu bañ am am na solo léegi mën nañoo tëj loolu ñëw cof ci làmb ji tuuti di waxaat ka ni rek presse bi moom ñun ak ñoom ñoo far ndax ñun ñi presse la ñu te ñu ngi liggéey kon groupe Futurs Médias groupe bu mu ci mën doon rek ñun on est des partenaires dafa fekk ne nag olof a ko wax rek benn lay pàq la ñoom tamit ñu ngi déglu leen ci naqari rek wala lu ñu leen ci leeru rek am nañ droit ñu dégg leen micro ñoom tamit ñu wax parce que ñun ñëpp lañ fi nekkal même bu dee micro Leewtoo lañ te mais Leewtoo c'est pour tout le monde. mais il faut ñu mën defuma journalisme mm-hmm. mais jàpp naa presse bi dañ ko war a assainir xoolaat ko parce que tey jii suñu mag Luc Nicolas yàlla na ko suñu borom gën a taxawu donc gis nañ li président def geste bu mu def ci moom donc te loolu rek lañ dem ñaan xëy na suñu xalaat suñu xel xalaatul woon loolu dina ko am mais jàppoon nee ni ñaanuñu woon lu dul ko mu ñëw retrouver waat làmb ci suñu borom dafay ko nii mu am fu fu mu ko jaarale président ñu ko si sant mu li mu mu mu jox ko mu gracier ko ba tey mu mën a ñëw si njabootam ba tey mën a ñëw si njabootu askanu làmb loolu am solo la mais moom kaawam ba mu njëkkee am problème ñu ko fi yóbbu man sama journaliste bind na fii xëy na suba bind loolu ma ne ko déedéet am seeg moom problème ba moom mu quitté fii sa jàmm parce am na ko man ni lu ko laaj sama grand la sama sa am sama am di jàmm la ñoo bokk liggéey bu ñuy def tolof tolof la bu ko dal donc ñun war nañ ko mën a traité beneen traitement boo xam ne duñ ko heurté duñ ko gaañ duñ gaañ famem xëy na kooku am journaliste la am na ñoom gisante wuñ ko noonu ñu xaw si xuloo mere si mu bàyyi dem mais lu ma gëm la lu ma gëm la te yow mën nga ma seede que Luc Nicolaï ba léegi amu waaw dañuy traité sujet mu baax parce du dara ñun loolu lañ xam Sénégal loolu lañ xam journalisme la mu nga jox information mais ak ni nga koy traité dafa am solo. mu juste rek nekk loo xam ne ku lii nga xam ne lii lii lii mooy information mais du heurter kenn du heurter kenn mais boo fekkee da ngay reprendre sujet bind euh, Pape Thialis promoteur Leewtoo arrêté. te loo xam ne bokkut ak Leewtoo dara day doy waar day salir trou Leewtoo te Leewtoo label bu am solo la nu groupe Futurs Médias wala beneen kii am label noonu la Leewtoo amee label bu am solo mu nekk lu ñu fonk ñun donc lépp lu ko bëgg a salir wala di salir suñu bopp dañ siy taxaw waaw ah, te waaw te on se laissera pas faire. am na solo loolu leer na nañ léegi fi may ñëw ak yow nag mooy damay ñëw ci combat Garga Mbossé ak ki nga xam ne mooy Sa Thiès yaa ma waxoon fan yële paase ne bu tabaski bi paase ngay rek le mbir moomu te ah fornaa ci wewu bëy ñu jege yi ñenn kenn ci mbër mi du ma tudd benn ban mbër la ci mu ne bu tabaski bi passé moom euh, te la nga wax defoo ko affaire bi daf fay jaare lépp doxee taa tabi géej waaw ñun amuñu si problème ñu ñun xëccoowuñu ay ay ay ay affiche ñun làmb ji ba ñuy gargamboose sa Thiès affice boo xam ne dafa ñëw suñu loxo noonu ñu nangu ko jël ko waxtaan si kii ki nga xam ne moo ñu ko indi ñu waxtaan ci ak moom ñu d'accord ci ay principe donc du loo xam ne dañ dem pour du waxtaani pour jëlee pour kii non dañuy toog mu yegg si suñu loxo ñu xam na lu baax la ñu waxtaan si war a waxtaanal ñu yombalal ñu ko wax ñu si yëpp ñu ànd seeg ñoom xam nga dinañ ko tëgg mais danga ñuy may ñu pare li ñuy def. donc avance génn na. déglu ma rek nee dangay may ñu pare li ñuy def maintenant may nañu si tabaski bi ak période bu nekk dèjà lamb ji ñu xamuñu kañ lay ubbi daa c'est un problème mbas bi gis nga fu mu toll. ñu mënuñu jël ñaari làmb si kor si tabaski bëgg ko réglé ñëpp am soxla tabaski mais dama jàpp nii aussi ba ñuy wax wax ne lu leer ak ñi nga xam ne moom la ñu waxal mais la ñu feeg ay semaine dinañ ko xool maintenant pare nañ ci tabaski bi pare nañ si tabaski bi liñ dem xool si xool ak suñu relation ak RTS signé nañ bi maintenant incha allah fii ak semaine prochaine balaa muy jeex dinañ jublu si loolu lu ñu war a sekkante ñoom sekkante ñoom mais bii fàtte ni aussi làmb amagul d' abord parce que kenn xamu kañ la saison bi du ubbi corona baa ngi fi donc lépp lu promoteur di def rek risque la mais da nga def jàpp ni ñu ngi ko sekkal ay góor lañu te loolu laa gëm te loolu laa xam donc ñooñu aussi bu ñu sekk ak ñoom dañ jàpp ni lu ñu si mënti def rek c' est pour peut être xëy na permettre que li nga xam ne moom lañ bëgg def mi affiche boobu mu am incha allah suñu borom dogal bu saison bu amee ñu ñu tëgg ko mu jeex. mais mais man awma ci problème nit arrêté dem. na na na na na bëreetu wala dara man amoo ci problème parce que ñun vraiment affiche boobu ñun mooy lu ma wax rek ñun affiche duñ ko xëccoo waaw ku si damba santé aussi mënatoo ci nekk amul problème ñun waxu principe la ay gor a ñoo wax te ñi leen jiite ci seen manager nekk nañ ñoo xam ne ni euh, ñu ñu respecté lañ ci si si milieu bi te ñoom ñooñu ñooñu ñooñu ñoo ñooy suñuy mag ñu couvrir ñooy ñooy ñooy ñooy suñuy lépp donc bu neñ teg lañ fi seen tànk fa lañ koy teg donc am bugguma polémique parce que man du ma polémique si si si si làmb waaw ñu kooku wax loolu aussi xëy na xelama toll foofu rek mais ñi ngi def le maximum pour que suñu problème ak ñoom amuñu sa problème mais pour que lu ñu waxante ak ñoom euh, bu jotee ñu def ko te ñu ngi si incha allah rabbi ñu ngi ñaan suñu borom fii ak semaine pro fii ak bii di ñëw loolu mën a féete boor ñu wax leneen. am na xale bu bokkoon si làmb ñëpp gisoon ko mu waroon nekk un sampion yàlla jële ko fi bër bërki dem bu yàggul ci accident muy Papa Yade Leewtoo demoon na fa def fa reportage loolu defe naa yëg nga ko looy wax waa Tëngéej ak looy wax ay param ak looy wax waa askanu làmb waaw lu événement yi mel noonu bu fi amee mais événement yoo xam ne ni mënuñu si dara parce que suñu borom bu soxlaa ñëpp ñàkk mais lu ñu def lu dul maslawu maslawu seen seen ay famem jaale famem donc papaam ñoom ñëpp a suivre naa euh, élément bi nga fa def foofu donc di jaale famille bépp commencé ko si kilifaam di papaam ak ñu fa nekk ñëpp ak ñu muy bokkal di li ak waa famille ak ñoom ñëpp ak waa waa ama neex ñoom ñëpp ñu nekk un champion ak sama xarit ñoom ñëpp mi ngi leen di jaale papa yaa di dëgg parce que jàpp naa ni nit moom bu amee ku wàññeeku si askan bi rek ñun ñëpp dinañ ko yëg donc di ko ñaanal fu mu ne parce que loolu moo si am solo man dama ne xëy na fekkee ci yëpp am na solo mais lu ëpp solo mooy fu nit toll ji ka ñaanal donc te incha allah man en tout cas du ma ko fàtte du ma ko si samay ñaan heure bu may ñaana ñi nga xam ne ñoo fi ñoo fi ñoo fi bàyyeekoo mhm. dinaa ko ci boole mhm. donc di ñaana suñu borom que fu mu jógee fu mu yegg fu mu nekk ne gënal ko fu mu jógee mhm. que suñu borom boole ko ñi nga xam ne ñoom ñooy ñoom ñooy dëkkandoo rasulullah sallallahu alayhi wa sallam waaw lu ñu métti la xëy na amoon na champion la amoon na carrière mais suñu borom moom ay mbiram mooy loolu mooy ñoo dogalam ñu koy nangu parce que jullit lañu donc loolu la ñuy nangu ci moom di jaar jaale tamit parce askanu Sénégal gi yëpp maanaam ñi fi bàyyeekoo ñëpp xam nga kum ci mën a doon rek rawatina xalifa ñaseen bi ñu ngi koy jaal wa ahlu laay waa ahlu ñaseen bépp di ko jaal julliti Sénégal yëpp tamit. important aujourd'hui fu ñu toll nii si Sénégal euh, liñ si jot si ñi ñu ñu ñu fi génn àdduna si période bi yëpp ñoom ñëpp macha allah i kilifa lañu nekk ñoo xam ne ni Sénégal soxla na leen suñu borom bu leen fi jëlee da leen di ñaanal ñoom tamit donc suñu borom yóbbu leen àjjana bu gën a kawe suñu borom boole leen ak rasulullah mu nekk mu nekk seen jëkkandoo donc suñu borom daal na def lépp lu baax ci ñoom rek na ko def yóbbu leen àjjana loolu la ñu ñaanal ñoom ñëpp. di ñaanal xalifa ñaseen bi di ñaanal ñoom euh, tonton Babacar. bi nga xam ne Babacar Touré. donc ñoom ñëpp daal ay monument la ñu. nekk ay royukaay. yàlla na suñu borom teeroo àjjana ñoom ñëpp. am na solo di jaal tamit sama mbokk yi dëkk Caaroy suñu benn papa bu ñuy wax papa Jib Fay di bàyyi ñoom Wende Fay Sëriñ ak ñoom Mbay Fay yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko aljana papa Jib Fay yóbbu nañ ko ak yaay gépp sama Fay bi nga xam ne moom mooy papaam di ñaan Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm mais dese balaa may dem foo ma laaj la ku la ñawal <laughs> waaw man nag eh, ñaw moom kii caam mm, eh, bu na moom a ñawal mhm. man aw ma ñaw moom aw ma tailleur yëpp sama tailleur ñu waaw ay masaay ñoom ñëpp vraiment tailleur yëpp ren ak surtout tabaski bi nii mhm. ñoom ñëpp ki nekk wane nga li nga mën ay ay waaw ay nekk la mhm. donc bu ñu xeeb lu ñu am fii si ñawkat si dàll dàll yi ma sol nii dàll Sénégal Sénégalais ko liggéey waaw te vraiment waa pour te dire que rek ay mu ngi leen jàpp. consommer local na leen état bi jàppale. mais na si gën gën a taxaw gën leen jàppale parce que kii tey ñaw dafa lii mhm. nekk njaw nekk rue 10 mhm. tey boo ko joxoon tey ji mhm. usine jox ko matériel bu war foo naa ni daal dootu dugg Sénégal benn dal Maroc dafa dugg ci. waaw lu leer donc loolu aussi ñi si si waaw ñi si ñaan suñu borom ñaan si président de la république mu gën a taxaw taxawu ñooñu pour que ñoom aussi ñu mën a liggéey. parce que :fra ñun ñëpp soxla nañ liñ fiy am na solo kookoo ko ñawal càmm ca Medina ko ñawal man nag ki ma ñawal kenn la mooy kan laasana laasana nag xam ngeen ko euh, di tailleur boo xam ne xale la waaye macha allah loxo ba set na lool yàgg maar gis nga li mu ma ñawal ci turki njaareem double baat daal itam gis nga ay sénégalais ko liggéey kon nañuy consommer local laasana numéro téléphone dama koy joxe du mën a ñàkk yàgg 78 la 157 13 36 loolu noo yomb naa jàpp danaa fa yóbbu maar yóbbu fa DC yóbbu fa ñuy 13 36 Laasana création kenn du moom waaye Rimka boroom borom Touba Sandaga moom tamit du ko fàtte sama doomu ndey la moom tailleur international la di ñaan Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm mais Youssou Ndoye l'international de basket sama xarit maa ngi koy béggee di ko ñaanal jàmm sama soppe yëpp fu ñu mën a ne rek waaw Youssou Ndoye waaw waaw waaw suma xarit la xam naa xam naa ko yaayam soxna Penda Jawara waaw papaam xaw ma yaamee xam naa papaam xam naa samay samay donc nekk aussi suñu sama dëkkandoo sama xarit donc dëkk Sacré-Cœur bi nga xam ne fa lañ nekk uh-huh. donc moom aussi ñu ngi koy nuyu uh-huh. donc mu ngi vacances uh-huh. mais gis nañ ni ku am yar la ku ku ku nit ñi la ku ku ku social la te koy waaw ñu koy ñaanal aussi moom si lu mu nekk noonu sport boobu di basket yàlla suñu borom taxaw bu baax loolu am na solo maar Youssou Ndoye la wax loolu defe naa ne social bi mu xam naa ci dara ndax ren ci koo fa corona bi ay millions yu bëri la génne jënd ceeb diwlin ak saabu séddale ko jox ko jaami yàlla yi loolu la ñu soxla ci réew mi di defante yu baax di ko waxante moo gën lee ca des ndax lu bon moom yal nay dem rek ñu di ko dégg te bañ caa bokk wala ñu fekk fu ñu koy defee kon maar yàlla na ñëpp am jàmm corona bi yàlla na dem ak jàmm barke yonent bi sallallahu alayhi kilifa diine yàlla yàggal leen fi kilifa gu mu si mën a doon nag moo xam jullit yëla chrétien ba réew mi daal yàlla na fi yàlla def jàmm def ko ci àddina bi yàgg maar ne woon ci caméra bi ànd ak kan Racine ak kan Diop ah Ousmane Ousmane maa ngi lay bëggee waaye waa RTS tamit du ma leen mën a bañ a nuyu maa ngi leen di bëggee parce que ñoom ñooy ndayu ñëpp ku mel ni euh, euh, sama waa jële maam Cheikh yow yaay làmp kenn du yow yàlla na jàmm am ci àddina bi yëpp